bismillahi rahmaani rahim sëriñ muhammadul mustafa radiallahu taala xanu mas na jóge tindoodi dikk njaareem bi mu yëgloo sëriñ tuubaa xaadalaw law maxtaaralowoo wax ni na agsi ba mu agsee mu ni ko kañ nga ñëw ko léegi laa ñëw mbàkke sëriñ mi ni ko foo bàyyi ko mu ni ko tindoodi sëriñ mi ni ko yoon woo aw mu ni ko xàll wi rek ba tuubaa rek sëriñ mi ni ko xàll wi romb ja mu ni ko waaw sëriñ bi ne ko ana Babacar sëriñ Mouhamadou Moustapha radiyallahu taanu mi si kut sëriñ bi ni ko boo ma joxee loxo danga ko jox loxo daal di ub buntu ba boobee la daal di ñëwaat ci sëriñ bay jaxate radiyallahu taanu bi mu ko jubee da doon ree mel ni ko xam li ko sëriñ bi wax walaw alam sëriñ Tuubaa xaadala walaw maxtaar la woo nee dëkk bii mooy nja wala xuru mbàkke dëkk bii du bu ñuy romb ku fi jaarati na fa jaar bu kenn jógee ti penku dikk fii te néewuma ba Bakar Jaxate nuyu na la bu ko kenn def digaluma ko kenn bërëb ba du bu ñuy romb wér na lool day mel ni sëriñ Bay Jaxate radiallahu taala anhu moo waral loolu wala sëriñ Habibu ma fa nekk la taala anhu wala muy bërëb bu yàlla warmaal rekk ngir sëriñ Tuubaa xaadalawo la maxtalawo ndax gis nañu li mu waxoon ci ginnaaw wala alam ñu ñëw ci nettalim ñaar téeméer bi ak fukk ak benn am na bi sëriñ tuubaa xaadalawoo law maxtaare lawoo di jàngale ci ay tomb am génn góor guy bafngu ba jige bafngu mooy raam génne saaku xaalis naan bii di wala ko jox ba mujj am am lu wadd daanu ci tomb sëriñ bi sëriñ bi fel xaalis ba mu tasaaroo mu ni ko lii du dara lii may wax rekk am njariñ wér na lool am na ku doon wut sil baayam ak léemaay ci sëriñ Tuubaa xaadalawo law maxtaarlawoo ba mu ñëwee fekk sëriñ bi ci tomb yi booba mi ngi yore ak kànnaar sëriñ Tuubaa xaadalawo law maxtaaralawoo ni ko teg ko nee te diglu lii ba mu noppee ni ko ana fu ñuy defar sabaay léemu gi mu am lu mu génne sëriñ bi ni ko tibbal suuf def ci mu def ko sëriñ bi ni ko dollil mu doolu ba mu war a mat angaar ak lëf angaar xëy na kii du sori ñaari kilo wala alam sëriñ bi jàng di tifli ba àggal ni ko takkal mu takkal mu ni ko boo demee bu mu ko sotti ca bërëb ba ca bërëb ba benn na ko xaaj benn xaaj bi na ko def fa néeg bay dëkke bi ci des na ko denc buy dem yóbbaale ko mooy buy faatu xëy na wér na lool sëriñ mbay jaxate radiallahu taala anu am na ku joxoon sëriñ tuuba xaadalo wala maxtaloo doomam jaarale ko ci moom mu ànd ak moom ñëw njëreem bi ñu duggee lu man ñaari bunt mu ni ko toogal foofu ma gis sëriñ bi kookee nee na ba mu fa toogee tuuti la dégg sëriñ bi ree sëriñ bi ree sëriñ mbay ni ko ku ñuy wax moor baara kan moo la jox doomam mu ni ko anamu mu ni ko ma nga fa kaadar bee kaadar mooy bunt sëriñ bi ni ko Baabakar xanaa yëgoo ni ñooy mbokk yi sës ci man rek ne ko na ñëw mu ñëw mu ni ko Baabakar ñii laa bokkal njagoogee ca laa dëkk daldi wax gone ga àndal ak moom lu mu la wax rek na nga ko def wér na lool sëriñ Tuubaa xaadaloo law maxtaarloo mas naa waaj bisub gaawu ngir dem nja bi mu toogee ba bëccëg mu laaj kooku ñu waroon ba ñuy dem nja oto lay wax ndax amoon na ko mu ni kooku mu waroon ba ñu dem nja na ñëw ndaw la dem ñëw ni ko amul fu mu aw sëñ bi ni ko lu fi ne mu ni ko penc mi daa fees dell aki tubaab aki nit sëriñ bi ni ko waaw lu ko def daa di yónni moor mbay radiallahu taala an ni ko boo demee neel babacar ni ko boo demee neel babacar yoon wi jugal woon naa ko waaye seytaane da koo yëg ba duma mën a ñëw tey wér na lool sëriñ Maamoor Jaara radiyallahu taala anu mas naa wax sëriñ Tuubaa xaada lahu law maxtaa lahu njabootu xurija dénk naa la ko sëriñ bi ni ko dénkoo nanu ko siiw na xëy na koo kii mu bokkoon ci waa këram yu jigéen te loolu la sax walaw alam xurija am na ku mas a ànd ak rakkam loolu ba ne nettali la muy nettali ñaar téeméer bu ak fukk ak juróom benn am na ku mas a ànd ak rakkam ñëw ci sëriñ Tuubaa maxaada lawo law maxtaar lawo rakk jébbalu ci sëriñ Tuuba mag ji ñëw wax ko baayam mu ni ko mbaa yow jébbaloo mu ni ko déedéet mu ni ko waaw góor waaye mujj na moog baayam ñépp jébbalu ca rakk ya siiw na sëriñ Tuuba xaada lawo maxtaar lawo bi mu nekkee njareem am na ñu mu yónni woon ay seng ba ñu ko jëndee ba noppi tubaab ba bëgg ba may leen biteel bob laj koloñ ba ñu ko waxee sëriñ bi mu ni na lépp dellu man duma bégloo nasaraan siiw na mel na ni Sëriñ Tuubaa xaada lawo la maxtaara lawo daana tàmm jëfandikoo jën mu koy bañ a defal dara ba keroog muy rees bu ñu fàtte ni sëriñ bi daawu ko jëfandikoo ngir warmaal liggéeyal yonente bi sallallahu taala alayhi xëy na looloo tax muy bañ ku ko jëfandikoo mu koy defal dara walaw alam am na ku mas a wax Sëriñ Tuubaa xaada ni ko daa am lu ma jaaxal lu may laaj sëriñ bi ni ko lumu mu ni ko gor su liggéeyal nga nekk ci ker gi mu nekk ca naaj wa soo soxlaa yónni ko loolu daal jaaxal na sëriñ Tuubaa xaadalaw la maxtaar law ni ko ni ko lii nga laaj ñépp waroon nañu koo laaj waaye na yéen ci wulli rekk war lii dem ci mbuus mi maa ko ciy def wulli mooy defar wala yar lii ñépp la jaaxal waaye fi mu ne Serigne Touba xaadalewoo la maxtaaloo day bëri yoo xam ni da koy jëfanteeg boroomam ba noppi mu door a feeñ bu feeñee nag dana ko yéem waaye du ko jaaxal moom moo tax li nu war ñun taalibe yi mooy di jéem a yem ci ay yemukaayam tey fexe matal ak bëggam kon bépp sëriñ lala war ci sab taalibe mooy jàngal ko alxuraan ak xam-xam xamal ko bëgg Serigne Touba xaada lawo law maxtaara su ko defee ngeen di ànd di dimbalante moo xam da ngeen di bay wala muy liggéey di la jox waxtu wala joxe itam war na ci yow nga di ko jëmale ci bëggu sëriñ bi ndax xaalis boo liggéeyul loolu ci daa yomb lool wala alam Sëriñ Tuubaa xaadalaw la maxtaar loo bi mu nekkee ci tukki bi am na tubaab bu mës a xëy si ci moom ànd akub xaj am na nettali yuy wax ni da doon fóon kayitu sëriñ bi sëriñ bi ni ko boo fi ñëwati koo kii bul àndateeg moom ci ëllëg sa mu ñëw àndaat moom sëriñ bi sëpp ci daaji ji wiccax ko mu tàkk daw wuti ko mu daw daa di dañuy xam karaama ñoom tubaab yi siw na lool sëriñ tuubaa xaadalawoo laahu maxtaaralawoo am na bis ab tubaab woo ko mu àndak moom di dox ba sori ci benn bërëb bu dara nekkul mu ne ko gis nga fii mala indi sama maam am na lu mat juróom ñaari wàlli yoo xam ni xamoon nañu fa bi di fenke ak fa muy soxe fii la leen sànke mooy raye yaay juróom ñetteel bi sëriñ bi ne ko duma ñooña yawit doo sa maam nee ñu ba ñu delsee mu xëy di ko jëlsi ba ñuy dem am ko taseeg moom ni ko kii nga àndal laa soxla mu ni ko foo bàyyi ko mu ni ko senegal di wax sëriñ bi ni man la am sunu boroom mënu yabal maak ahlu badrin sa ndigal la ñuy diglu bu la neexee waxuma la nasaraan yi waaye kuy tanasuru mooy nuru nuru lu tubaab dootu taxaw ci àdduna tubaab boobee daal di wax ak sëriñ bi ni ko lii say mbira ndax amul kenn nit ku mën a bette moroomam nii sëriñ bi ni ko wax leen li ngeen may doye ku doxul suñu digg ak jaamu yàlla amuñu ci yow soxla mu ni ko ndax mën nga koo bind sëriñ bi bind xul walaaw ahad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad boobee lañu taxaw temm ci ak dellu séem lu man di xew sëriñ bi bari na bari woon na lool lu mu daan nettali mbiri géej gi xam naa ku nekk la nga dégg ngay mën a nettali ak na nga ko mën a nettalee wala alam ñu ci nettali ñaar téeméer bi ak ñaar fukk ak ñaar sëriñ Tuubaa xaadala wala maxtaaloo nee na bi mu nekkee ci bato bi mas naa jàppal tisbaar julli ko booba am na jigéen gu toog di ko xool ba takkusaan jotee mu jàpp mu daldi dikk laal ko mu ni ahuzu billahi jàppaat mu del siwaat mu jàppaat mu del mu sànni der bi ni ko bulagaal gi raw nee na yoon wu lépp lii la ci def loo xam ni bàyyiwul ak boroomam te nee na lislaam la doon bañ mu fay wér na lool Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo am na ñu mu masa ñu dikk mu ni del si ngeen a min janna ilal janna jóge àjjana jëm àjjana wér na lool Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo daana waxtaan ak fere yi ci yoonu géej gi ba mu yàgg mu ni leen seeni bopp attanu ko foofu laa yem wér na lool Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo daana wax na moytu alfaasiduuna almufsiduuna ñi yàqu ba noppi di yàqe wér na lool mag ñi sàkku woon nañu ci tubaab yi sëriñ tuubaa xaadalawoo la maxtaaralawoo di am tuubaa juróom benn weer di ko am njareem ba tubaab yi nangu ko am bis dëkk bi fees dellu ñu naan day riñaan sëriñ bi jekki ba guddi am ñu mu woolu ci taawube ni leen xanaa dëkk bi kenn yënguwul ñu ni ko déedéet mu ni yéen duma leen nëbbu xanaa yaakaar ngeen daañu dem duma dem de duma dem de malaaka yi seede woon ci géej ga ba ma laajee ñu may ma fii ni duma fi jugee ndareeru gi jeex na xëy na daa am lu des fii wala mu bëgg a wax ni malaaka yooye laa koy seedaloo daa di ni dem leen tëri tëju na ñetti fan ubbiwul ginnaaw bi lii amee wér na lool sëriñ Tuubaa xaadalawoo la maxtaaloo bi muy dalal sëriñ Habibu radiallahu taala anhu moom sëriñ Mbàkke Kajoor radiallahu taala anhu àndoon naag lu mat fukk ñeent waaye moom ñetti bind la ko sëriñ bi bindal ña ca des ñi benn bind ñi xaaju bind am na itam ku mu bindal ci daaju xong daa wax maam Ceerno radiallahu taala anhu kenn ku nekk na nga fopp alliwoom teg ko ci luppam te sako ko siiw na Sëriñ Tuubaa xaadalawoo la maxtaar loo bi mu nekkee ci wër bi mas naa dem Cherif Lo ab dëkk la jawali ca armeel ya am ku faroom mu gis armeel yu xumb lool mu daw ca dëkk ba mel ni ku jommi ñu ni ko lan la mu ni ñëw leen li ma gis ca armeel ya ñu daw ci fekk Sëriñ Tuubaa xaadalawoo la maxtaara lawoo taxaw yëkkati loxo yi jàpp ci garab ka ko gënoon jigéen nee na ma ngay dégg mu naan da xam ni ñëw naa fi moos siiw na sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaara lawoo nee na bi ko tubaab bi di boole gaynde gi daa dem ba mu yàgg mu taxaw ki gi jiital ni ko ca nga jëm de jàpp ni daa ragal te fekk na rasulullahi salallahu taala alayhi bi alihi moo ni ko taxawal ma jiitu loolu xëy na muy ndar waaye gaynde gi moom daa boo fi wetam walaw alam sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaara lawoo mas naa ànd ak maam Ceerno radiallahu taala jóge Mbàkke Kajoor mi ngi yor aliwa bi ñu ak see deqale fi bërëbu Maamoor Anta Sali radiallahu taala sëriñ bi ni ko jublul sawu nee ma jublu sowu di jàng ba mu yàgg kër-kër ji xumu lool ma geestu gis sëriñ bi di wax ak Maamoor radiallahu taala anhu siiw na ñu ñëw ci nettalim ñaar téeméer bi ak fanweer ak benn am na dun boo xam ni ba ñu fay yóbbu sëriñ tuubaa xaada lawo law maxtaara lawo te mooy wir wir dañoo wax borom gaar gi ndax man nga faa dem mu ni mën naa ko fa yóbbu sëriñ bi nee na mook sàmba lawbe lañu boole ba muy del si dani ko bootul ci sama ginnaaw muy niigal mu ni ko damay dem wàcc la fi de mu door a boot sëriñ bi nee mu xam ni ak ruuxam attunu ko ma jàll ma jël sama kaala takk bët yi ni bismillah ñu da ñu daal di yegg si fasansa sàmm ni ko yow mënoon nga ko def dellu sëriñ Tuubaa xaadalahu wallaahu maxtaaroon ni ko kon dañu naan dama daw kookee yóbbu sëriñ bi bi mu ñëwee tubaab yi dañu ko naroon a bañ a fay mu ni loon mu ni leen yóbbu ngeen ma waxoon te yóbbu naa ko mel na nettali bi am na ak wuute tuuti ak ba ma andi woon ca waxtaani sëriñ Tuubaa booba nag moo gën a matale mel na ne itam moo gën a wér ba tey loolu sëriñ bi def bi muy ñëw daa bokk ci mbiri wàlli yu radiallahu taala anhu mel ni wax ak garab yi ak ñaaw ci jaww ji ak dégg lu sori loolu jublu gi ñu jublu seen boroom mooy tax menoy yàlla di feeñ ci ñoom walaw alam sëriñ moor Gueye radiallahu taala anhu mas naa ñëw ci sëriñ Tuuba xaada lahoo laahu maxtaara lahoo ni ko dama bëgg nga boole maa ndaw loo xam ni xaddiye ju may andeeti man ko tek ci loxom serigne bi ne ko amoori mu ni ko mbacke mu ko fi luñu fi sànni rek ñu for ko te luñu fi for du réer lu way yëkëti ngir man rek la nga ca bëggoon am nga ko ba noppi siiw na sëriñ tuuba xaadalawo law maxtaar ci njaareem am na gu mu seen mag ñi toog di waxtaan mu toog di jàng alxuraan ba mu yàgg mu wut ci leen ni leen lu ngeen di dajaloo fii ñu ne ka dañu la doon xalaat dañu la doon xalam xalam mooy xalaat mbaa dañuñu dem àjjanaak mbaa ñu dem sawara Sëriñ Tuubaa xaada lahoo laahu maxtaara lahoo ni tekk ba mu yàgg mu ni du yéen a ngi jàng xasiida xasaayidi ñu ni ko waaw sëriñ bi ni man samay xasiida du dem sawara ku kon ku koy jàng war naa naagu ni du dem sawara ndax man samay xasiida du dem sawara siiw na Sëriñ Tuubaa xaada lahoo laahu maxtaara lahoo ba mu nekkee ca tëjoom ba am na bis mu julli tisbaar ci jàkka ji ba ñu sëlmalee mu wax sëriñ Malick Ndiaye radiallahu taala ni ko yéeneel wax ñépp nañu julli see tàkkusaan fii tàkkusaan joojee la mujj a julli si ci jàkka ji bokk na ca la mu wax ba ñu dajee na sax ci julli juróom tey sàkk sarax tey ñaan te xam ni xarnu bi jeex na su fekkoon ab néeg la ma ni fom nañu ko teg faneen indi fi beneen néeg bu yees peq nangu dara waratuma bi max naa jël dara waratuma daldi di génne ak gaal def ca ab xaalis ni lépp lu ma waay di jox na ko def ci gaal gii daldi ni gees ni demal wool ma waay Muusa Géy radiyallahu taala nu mu ndaw am ku daw woowi ko ba dikk mu ni ko waxuma Muusa xarima Muusa jama wax mu daw ba këram woo ko mu dikk sëriñ Tuubaa xaadalawu la maxtaaloo ni ko faal gaal gi yóbbu lu nit di joxe na ko ci def wér na lool sëriñ Tuubaa xaadalawu la maxtaaloo léeg-léeg mu tàllu ataay ji ba nga taamulee xamm mu ni la bàyyi ko yoral ko boppam defar lépp ba mu àgg mu jox la lépp digle ci loo xam ni dana la jaral naan lépp ak di naan ataay ba faaw lu mel nii bu ko defee dalay wax ni bi ma la koy sant dama gis li ci nekk xajul ci sa bopp ma xam ni boo ko defee nangam ak nangam ma defal ko saa bopp wér na lool Sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaar loo nee na lépp lu muy digal nit yool baa ngi fi wetam waxtu wu gisee mu def ko yool ba dem bu geesoo gisul yool bi mu xam ni defagul la mu ko digal wér na lool bu weeru koor daan teru da ko daan takkal ay néeg di ko gasal ay teen di ko rabbal ay romb jaan di ko wutal ay kaas aki tabla aki baraada noonu itam la daan defal weeru gàmmu mel na ni itam weeru koor daan bëgg a jeex danañu gis ak soppiku ci moom ba ñu bari duñu ko nangoo jige bu weeru koor masaana teru wala gàmmu danga gis ab néeg bu fees dell ak ay jumtukaay mu di ko jëlal boppam di ko yóbbu ci baneen ba mu jeex tàkk te kenn du ko ci dimbale am na teen yu mu tudde woon teeni ramadaan ak yu mu tudde woon teeni rabiul awal wér na lool yal nañu yàlla dimbale ci ñaari weer yi ak màggal wala alam am na bi sëriñ Tuubaa xaadaloo law maxtaarloo woolu sëriñ mët jaw paxa radiallahu taala xanu mu ñëw fekk sëriñ baa ngi toog ak benn naar ba naar ba demee sëriñ bi ni ko koo kii dema sa taalibe bi defar sama téere bi nanga ma ko wan ni ko moo liggéey téere bo bii nga doon defar wér na xëy na koo kii xëy na koo kii ko Sëriñ Tuubaa wan xaada lawo law maxtaara lawo daa bokk ci wàlli wi faatu ndax wér na ni moom mii sëriñ bi wanoon na ko al imaamu ahmadi hanbal radiallahu taala ba muy waxte way wa araaniyal xadiimu ibna ambali baadal mamaati wal mamaatu xasbali xasbali mooy limu yi dox diggante bi ko ko sëriñ bi wanee ak ba mu faatoo moom imaamu xalman radiallahu taala xanu ci limu abajada walaaw alam ñu ci nettalim ñaar téeméer bi ak fanweer ak juróom-ñeent am na ko doon siyaare sëriñ tuubaa xaada lawo law maxtaar ci jolof jaar fi ab bërëb doon fa julli jaaro yóbbu ko ca hëddiyee ja doon jox sëriñ bi sëriñ tuubaa xaada lawo law laaj ko fu mu ko jële waxul lu leer sëriñ bi ni ko delloo ko fa nga ko jële woon mu ñëwaat ba agsi yam ci kunaan jullikaay bii mas naa fee ñàkk saab jaaro boo xam ni ni mu rafete man di xam ma nan laay defaat ba amaat bu ni mel mu ni ko sab jaaroo ngi nii wér na yal nañu yàlla doole dimbale ci ak sàmmonte ci barkeb sëriñ bi wallahu alam sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo ñëw na kokki fanaan fa soxna xëri ñang nday soxna faati madu maamu radiyallahu taala anhu dem ca pël ga foo xam ne ay pël dafay dajaloo muy wind di wut am soow ngir bëgg a defaral sëriñ bi ab laax mu am ci jigéen ñi ku ko yóbbante ab dax ba mu ñëwee fàtte ko defaale ko ca la mu yët sëriñ bi ka doon defaral sëriñ bi loola ba mu ko ca naree tàbbal sëriñ bi ni ko ndax xam nga ci la bokk ci la bokkam déet mu delloo ko ca ba nga xamee ni soxna si lii leer na ko yéemu na lool ba mu def ko jël wér na lool maam cheikh ibra radiallahu taala anhu mas naa siyaar si sëriñ tuuba xaada lawo law maxtaar lawo bay dellu mu ni ko jaaral ca kër basiiru googu sëriñ mbiri na ma nga fa nga nuyu ko loolu dañuy xamal fonk gu sëriñ bi fonk maslaha ak jokk ak mbokk ak siyaarante ngir yàlla subhaanahu wa taala bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa nee na kuy siyaare mbokkam ngir yàlla lu mat juróom ñaar fukki junniy malaaka danañu ànd ak moom wallahu alam am na bis Sëriñ Tuubaa xaada lahoo law xaada lahoo law maxtaar lahoo dikk ba ci bunt bi di laaj genn xasida ndax kenn am na ko ci ñu di ko wut ba sonn am kenn koo xam ni gan la ci kër gi am ko ñu ne ko xasida yi daal da bari na Sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaar lahoo ni xanaa bari na lool ñu ne ko kenn xamul nu mu toll lu waaye bërile bërile da danga gis ku la fi mujj ku la fi mujj a dikk am goo xam ne amoo ko sëriñ bi ni bismillah ndaxam li muy bëri bëri li nga xam ni defar naa ko ba saa nangul ma ko ma natt ko ba xam ni am na ak nangu ma gas ko suul moo ëpp xam ngeen lu waral ma gas ko suul ñu ni ko déedéet mu ni def naa ci loo xam ni moos benn xol mënu koo gëm te xol bu ko weddi lakk ma dajale lépp gas ko suul waaye li ngeen a gis li ngeen gisu te ëpp li ngeen gis wér na lool sëriñ Tuubaa xaada laxoo law maxtaar laxoo mas naa génn ci lixtikaaf seen sëriñ mbàkke baayam bu ndaw xëy na muy sëriñ mbàkke kajoor radiallahu taala anu teewul am na nettali yuy wax ni da ko woolu wala alam mu ayu ko mu taxaw mu agsi ba ci moom ni ko sunu borom subhaanahu wa dama booleeg yow tey nee na loo bëgg nga wax ma defal la ko mu ni ko sëriñ li ngay wax rey na lool di mu ni ko waawaaw loolu la sama sunu borom wax tey nee na loo bëgg nga wax ko ma defal la ko mu ni ko moo sëriñ xam nga ni ñu demee maag yow sëriñ mi ni ko xam koo tax ma wax la ko mu daal koy fàttali lu bari ci ak ndawam ak ni mu ko daan toppatoo bu njëkk ni ko loolee lépp ba ma koy def xamuma woon ni danga dem banaama yàlla nee na sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaraloon ni ko loolu la yàlla dogal tey mu ni yoo xam ni yett yi maa ko moom benn bi rek laa ci bëgg ni ko am na ni ko man ak ku bàyyi ko ci man ak ku yaakaar fee nu jëm bu nu fa gis lu nu ragal bu nu ko fa dégg bu nu dee bu ñu dajeeg benn coono adduna ak alaxira sëriñ Tuubaa xaadalawoo law ni ko defal naa la ko mu nu ko dama dégg sa kërug Daaru Salaam gee danga koy bëgg a jox ci taalibe yi kenn te mooy sa kër gi nga njëkk a sanc bu ko jox kenn ci taalibe yi jox ko ci sa askan wi kenn taalibe yi foo nekk ñu fekk la fa dëkk ak yow jox ko sëriñ gaawaan radiallahu taala am am na ñu ciy boole boo doon kuy am mbokk mat na la mbokk mu ni ko def naa ko mu ni ko ahmadu numbe mii radiallahu taala anhu wàcce ko te gis naa ci ay waggam am na ñuy wax ni ci ab jëxam dugub ju bari te xam naa ni danga amul njaboot sëriñ bi ni ko danaa ko wàcce mu ni ko li ci des mooy daa mel ni danga bëgg a jël sa mbir dem moom ba ci àll bi nga sànni ko fa sa askan wi bañ koo jariñoo sëriñ bi lii nga am yenniku ku ko ci réew mi bokk koog ñoom jariñu ñépp jariñu sëriñ bi ni ko def naa ko wér na lool wala loolu mooy gàttal gi ku nekk ak ni mu mën a waxe walaahu alam soxna Anta Njaay radiallahu taala anu bi mu làqoo sëriñ Tuubaa xaada lahu law maxtaar nee na soxna jaara radiallahu taala anhu jaar na fi léegi wax ni moom lay gatanu ndax daa waxoon rus naa gis sëriñ maam moor anta sali radiallahu taala anu te gisul soxna si ba noppi xëy na moom sëriñ moor sëriñ tuubaa xaadala wala maxtaaloo nee na bu démmu doon tey sëriñ moor doomam yépp moom la koy tudde day xam xamle ni fa mu nekk bu dellusiwaatoon adduna doom ju mu am sëriñ tuubaa la koy tudde xaadalawalaahu maxtaaralawoo bayit yi nee nañu sëriñ tuuba xaadalahoo laahu moo ko jëmale woon ci sëriñ maamoor anta sali radiallahu taala anu bi muy jàng ci moom haroot bayit yi mi ngi nii أيا منبع الأحكام يا خوص الدليل أيا خرم يا ناموس يا قطب سلجيل أقص مديحا مثل دبس مدكدك بسكر وراه غير خول الأباتيل سأثني عليك اليوم مدحا مشيعا بحمد وشك ورضوان وشكر وتبجيل سأثني عليك اليوم مدحا مزينا بشعر عجيب معجس كل معقول جزاء لما أوليتني منك من كرامة بعلم وآداب ومجد وتفضيل فعني جساك الله دنيا وفي خد جزاء يغر العين في كل مأمول وأبقاك دهرا حاكما لعباده لأنك تبدي الحق من خير تبديل لأنت, لأنت إمام الجيل قد فقتهم معا بهلم صحيح مرشد كل جهيل فلو أنهم لم يحسدوا كل محسد لجاءوك بالألواح طرا بترحيل لما هست من علم وحلم ونصحة وصبر وإصلاح وكشف الأواجيل أقول وكم من ماده وهو مرتد لنعم الفتى الحبر المري كل مجهول وكم مشكل من يمنه سار واضحا وكم من دقيق قد جلاه بتفصيل وكم عالم قد شار فهلا لأهله ولولاه لم يعرف ليادا لتدليل أب قد أبى أن جاءه أي طالب وآب بشك أو فرا أو أشاكيل لقد كشف الإشكال طرا جلية بفدوى وتفسير ومجد وتفضيل درائبه صبر وصف لظالم وعلم وتعليم وصدق الأخاويل ومن هذه أوصافه وخساله فقد هاس زبخا باديا خير مسؤول لهم لعمري وما عمر الفتى متهينا عليه لهذا الفضل من خير تنوير wérna lool way way yu mel nii li tax ma koy andi fii daa xaw a mel ni waxtaani ndax kenn du ko boole ci xasida yi am na loo xam ni itam warees na koy gëstu bu baax te mooy foxee dajale bu wér li sëriñ bi bind muy ay xasayit yi ñuy jaamoo yàlla subhanahu wa taala ndax xasiida yi moo fi des li ñuy dund ci sëriñ bi sëriñ abdourahat radiallahu taala anhu def na li mu man lépp ci dajale xasaayid yi ba mel ni li mu ci dajale ak ni mu ko dajalee kenn fekku ko ci waaye dañoo war a fexewaat ba xasida yi feeñ ginnaaw dajale googu ba xasida yi feeñ ginnaaw dajale googu yépp ñu boole leen mu nekk diiwaan boo xam ne ñun murid yi dañuy dëppoo bu wér ci ni xasaayid yi sëriñ tuubaa xaadaloo maxtaaraloo bu lii amee ñu daal di mën a wax ni bu kenn bindati genn xasida te waxul ni mi ngi jugee ci diiwaan sàngam ni ñu waxee sahihul buxaari sahih muslim radiallahu taala anhu ci numéro nangam man nag murid yu bëri dañoo am yaakaar ci man ci xasaay di ba tax na ñuy dajale li ñu man ak di jéem a leeral mbooleem li sëriñ abdullah dajale woon radiallahu taala anhu ci xasida bind nañu leen ñu nekk ci ay diiwaan yoo xam ni tur wu ci ne sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaarloo moo ko tudde noonu mbooleem xasida yi feeñaat itam ñi ngi def li ñu man ci dajale leen sama baay bi itam muy sëriñ Abdourahman ak sama mag ji di sëriñ Xalil ñi ngi may dimbale bu baax ci topp gi ak wéral gi yàlla nañu fi yàgg te walla walaawu alam Tuubaa li aalimin saadiqin lahu